sum jeeg dafay dafay rëy macha allah yaatu am jëmm am salaj salaj waaw ma ñëwaat yéen ci samay accessoire gis ngeen nii ensemble la euh, lam baa ngi nii jaaro baa ngi nii collier baa ngi nii jaaro nopp baa ngi nii ma def nag samay rangale jaaro yu am jom xale bu jigen bu ci bëgg lu baax rek ñëw seet si ma ma defanteeg yow lu baax gis ngeen ni ma yaat na leen musuur bi yow mi nga xamne ya may seetaan am sens su jënd gi boko jënd dama lay may mbaxane bi en même temps da ngay amaale musuur bi nga xamne sa bo saa boo bëggee musóoru musóoru so bëggee def sa grande daan def sa ma sha allah gis ngeen ni wala su ma neexee samay loxo nak dama koy wacc waaw kay waaw su ma neexee ma wàcce ko ni mu doon ay loxo mbuss ma sha allah su ma neexee ma yéggé samay loxo ni ma sha allah samay lamak ak samay oo rag sameeyo baaxgeedna dagdhun aad ah, samagaahitayna dawdayna geena shigana andataan neenaanan collection tebas euh, tabaskigi ak nday faatu loogadi yoogu tay fiilaan yoogiyo jigar andu ma pesto loo koy rek ko ay elexit ma nam ko bëgg mu yóbbu so rek soo salee say ngalam baa nga takk say oor mbaa say palaake yu baax dañ koy xëcc ba nii rek mu daal di génn waaw ma ñëw ak yéen nag ah tey ah ci grande dame def sama nag mbaxane gis ngeen nii su ma neexee ma wengal ko nii su ma neexee ma def ko nii ci digg bi fu ma ko yóbbu day dem macha allah def profil bu baax ah waaw li ngi noonu am na musóor dama leen di présenté musóor bi ak maxane bi yëpp voilà gis ngeen bu lañ ko def bu baax def ah profil gis nga baat bi ñu ko liggéey nga travail ko ah téyeru law bi di bëtte daal ndax xale yi dañoo mën macha allah mi ngi nii yow may seetaan boo si bëggee mën nga jënd bi ma sol mën naa la ko jaay parce que ah